jërë ngeen jëf mbokku internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñoom mbégte contentement bu baax a baax ñoomati mbégte bu baax ah, jano ak ki nga xamante ne mooy Babacar Balde ñu fas yéene waxtaan ak moom tuuti ci komba yi nga xamante ne mooy bi fi am ah mais tamit di waxtaan moom tuuti moom tamit ci làmbam ji mu dëgmal moom diggante moom ak CFA euh, jag si tëgg ko combat boobu nekk le 2 décembre incha allah rabbi le 3 décembre le 3 décembre diggante moom ak ki nga xamante ne ñu fas dañ ci waxtaan ci làmb jooju tamit mais dañuy waxtaan tamit ci journée bi nga xamante ne tamit dimanche incha allah rabbi seen mag seen lépp ëmma seen di jamono jee ki xamante ne mooy tafaatin Babacar ñu ngi leen nuyu di la siyaar. abu ñu ngi la siyaar ginnaaw mi sant yàlla ji na si yonent bi sant seen tubaab wér di sant si ñaari waajur di sant kilifa diine yëpp kilifa aada yi sant waa senegal yëpp sant ñëpp surtout waa Pikine di nuyu waa Ziguinchor suñu dëkk di waa Añaak di nuyu waa Guinée Bissau di ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp ñu leen di siyaar waaw. Babacar ngeen jógee ci journée bu metti mais avant ñu ñëw journée bi dañuy ñëw ci ki nga xamante ne mooy seen bi ngeen am seen diggante ak Jax mu nekkoon làmb joo xamante ne xaw na jël tout le temps parce que dafa mel waroon na fi am mu yàqu ngeen war a bëriwaat di booba ak léegi ci lan la Babacar nekk. waaw gaa gis nga de waaw moom ay jàmm lañ nag day nangu yàlla dogal la ay jullit lañ waaw war nañ bëri le 4 juin mu yàqu ñu war ko ñu war ko le allah mais ñu ngi waaj waaj nañu ba pare ñaan yàlla yàlla ànd ak ñun yàlla may ñu ndam seetu guy te gaaw incha allah waaw. sa adversaire xam nga ci moom ay qualité. waaw ah, c'est vrai xam naa ne mbër la xam naa ne bërëkat la waaw parce que gis nañu ay kii xam la di ko ñaanal jàmm ñaan sama bopp jàmm bis ba suñu ma ñu ndam ba gaaw mhm. allah. dafa mel ne am ga sens ci ci combat boobu parce que dafa mel ne da a préparé ndoo ak Jacob préparé ndoo Ama Baldé préparé ndoo ak Pokola booy bari fii ci combat gis nañ ne chaque instant di nga indi booy ci làmb te yéen euh, entraînement yaay préparé ndoo ak ñoom. Ah, waaw loolu moom loolu moom la parce que ñun ñëpp ñoo ànd préparé ndoo billaay wallaay mm. ñëpp ñu ànd préparé doon mais di sant yàlla bu baax xam nañu xam nañu si mhm. combat Siteu kii. ah Siteu kii la dëggee incha allah si lay bëre waaw. mu ko mhm. keroog ngeen demoon si bés yàlla seen diggante ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo keroog préparation Ama Baldé ak lamb ji keroog gis nañ keroog dayoo lamb ji melokaan lamb ji ni mu mel maa ngi keroog lan ngeen yi keroog ci làmb jooju. waa keroog sant dolli sant yàlla rek xam ne lépp dañoo uti rek suñu borom xëy di sant yàlla wér. parce que ni ko war a préparé préparé nañ ko noonu mbër bi def nañu a def def nañu war a def waaw di di félicité Modou Lo ma di ko félicité ko yàlla yàlla na ko ndam di jig di ñaan sama papa Ama naa ko lii àdduna la rek. yàgg nga daan doomu jàmm mm-hmm. tey bëri nga ba daanu di la ñaanal di ko encouragé naan ko nañ defaruwaat incha allah di préparer le 7 janvier incha allah yàlla may ñu dem si kaw Gris Bordeaux mm-hmm. amul leen lu ñu ciy wax di sant yàlla mm-hmm. yàlla moo ñu xañ yàlla moo ndam incha allah di félicité Modou Lo nag naan ko yàlla cool day bëri ama daanu cool yi gën a bëri biir Pikine cool yi gën a topp li nga xamante mooy làmb làmb jooju ba léegi mu ngi mel ne lamb ji amagul parce que chaque jour débat lamb ji na ne Ama Baldé Modou Lô am. waaw waaw waaw parce que Ama Baldé Modou Lô moom indiwaa nañ lamb place am wax dëgg fi yàlla lamb ji dafa neex waaw nu mu ko ah, jox nañ lamb empereur bu mu bu mu moomaat gars lamb ji def lamb yi lépp waaw incha allah lépp si lamb ji moom waaw def nañ si lamb ji parce que indiwaat nañ coow lamb. Mm. waaw li gars yi doon gis nañ ko. waaw ñu bari nañ Ama Baldé moo indiwaat mbër lamb moo indiwaat Modou Lô ci lamb ci combat bii nii. waaw waaw parce que ama ah, ma ki daal parce que xam nga man dama man dama yaakaar sa la a jege nii xam naa ne moom su bëree Boña peut-être bu daana day day bàyyi incha allah xam naa ne day bàyyi ah loolu laa loolu laa jàpp de Modou xam naa ne Modou mi dootu yàggati si làmb incha allah mais moom ama ah, combat bi moo indiwaat ampleur làmb gars yi ku nekk di wax làmb ji neex mais sport la rek ñu waaye lu si waaye mënut wax rek sport la rek mm-hmm. lu la te mm-hmm. sport day jeex après ñooy mm-hmm. nekkaat parce que ñun ñëpp toogaat ñooy defaat lépp waaw ñaar waaw nga la rek incha allah waaw jafe-jafe yi ngeen dund ci làmb ji la ci biir combat bi Ama Baldé départ ànd ak mbokkam ci làmb ji bëri ñu naan Ama Baldé amul staff staff dama contrôle tuuti ci benn côté dama ne Ama Baldé depuis ma ñu fayeeku trente mille ba di daal ay millions man ñi daal gis ñi la doon ba bëri roi xam nga ma mën a comprendre dama ne ah man ñii ñii la ko yàlla booleel ay vingt cinq mille ak dix ay million millions ñi ñi lay àndal kon tey mënu leen war waaw ñun tey li mënu leen war xam nga tey Sénégal ñu te dama bëgg ma nu ko waxee rek professionnalisme lii mënu laa ma am na fi parce que ñi nga àndal depuis temps booy ba mag mënoo leen bàyyi la yàlla booleel ah mënu si dara ñu mu ànd ñi noonu yàlla booleel lu ko ay wax rek da ngaa wax rek mais mun leen bàyyi ñoom mun ñu kaa ba waaw parce que gis nga fi mbër bu ne ay kiyam nañu wax si moom lu ñaaw mais ama mosoo dégg benn booyam bu génn wala boo benn internet na ama def na mu def na mu li musulaam kon xam ama comme am na staff amul staff ñu ko ñu ñu ànd yéene hmm. hmm. bu a attaqué Ama Baldé mais euh, euh, bu ne am na fi. mbër ba gis yenn écrits yi a mag ay boy yi ñu génn sax ci kawam mais mosu ko gis ci Ama Baldé li koy dëggal léegi léegi mais beneen bi may ñëwaat ci li nga xamante mooy ci côté Ama Baldé ngeen génn ci ci combat bi def keroog ci lamb ji lan la woon. mais Ama mais Ama nit kese te jullit la rek jullit mooy lu seen maam Cheikh Cheikh Ibra di wax rek jullit mooy lu mën a ñëw rek da nga sant yàlla muy muy naqar sa muy bànneex di safaan lu mënta ñëw rek da nga sant yàlla parce que ama jullit la rek dana uti yàlla xañ ko te bu uti yàlla du ko may kon jeex na may mais fair play la ñu war a war a rek ba ama tey keroog man ma toog xalaat ma xam ne ama defal benn benn benn kii rek mm. keroog keroog keroog kon làmb ji kon kon li ñu doon wax ñu tuumaal yëpp dañu koy gën a tuumaalaat mais ah bu mu jëlee frappé lañ après ñu bëri dañoo étonné wu sax Modou la parce que salaam parce que dañu ut di di am tey ut nañ ñaax nañ dañu gëm yàlla ñibbi si barki yàlla bilaay ah mais may yoon may dëgg parce que làmb lii làmb ji mooy suñu suñu gañ-pain war ñu kaa yàqal war ñu ko yàq seen bopp am lu mu def ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp si kontaan parce que loolu mooy yoon lamb moo demee noonu waaw fa nga fa nga am benn maturité boo xam ne da ngay bàyyi yéen yi di bàyyi la ay laisser passer ah mu defoon comme Modou Lo comme Modou Lo mu defoon lamb ji di ko dégg waaw mais dara waaw dëgg la que ñu ñu bëri que ne euh, mbër yi mbër mu mag mi nga xamante ne mooy Tafa Gueye la mu doxalee si géew yi maa ngi ñu pikin nañu bëri di ko ci ŋàññi waaw Tafa Gueye man man du ma ko ŋàññi si dara mm-hmm. waaw du ma ŋàññi si dara parce que moom mag mu jëmm la suñu papa la suñu lépp la mm-hmm. mais daa am loo xam ne moom bu fekkee sax suñu waa ji moo sànni moom jarul mooy jarul sax muy fot nga sànni war na bàyyi noonu. Mm-hmm. loolu laa koy wax. du ma ko ŋàññi ma ko wax si dara. daam dafa parce que xam nga tey ñun suñu waa ji. Mm-hmm. lu mu sànni noonu si ñun la jugee. Mm-hmm. mu kii mu tudd sax tawaagee li mu sànni noonu ñun ñoo ko sànni Modou Lo mu jël ko delluwaat ñu ko waaye du moo ñu ko sànni mais laa moo lëndëm moom moo waroon xam ne moom si moom magu làmb la si si làmb la si làmb la la kii juddoo ba màgg si war a xam ne kon ju koy làmb nii la a moom magum jëmm la waaw làmb la koy bañ xam ne xam ne làmb li muy bañ a làmb ñu comme moo def loolu moom dañ koy la parce moom suñu suñu papa la suñu lépp la mun ñu ko yàlla bar mu ñu ko def dara ko def sax xalaatuñu ko sax incha allah waaw waaw daal ñuy préparé ñu ngi préparé bu baax ñu ngi préparé ñaan yàlla may ndam surtout incha allah mhm. suñu borom dañu koy defal bu mhm. seen mag seen lépp ëma seen di seen kilifa yi ñaan la yéen bëri Pikine muy jonganteeg tafaatin keroog gis nañ kàddu yi mu génnee ci conférence presse ba mu def nee na bëggoon mënoon naa def ëppam presse def lépp mais sama rakk Ama du nekk ci naqar may def a ay mbumbaay yooyu te Ama woo na ko téléphone ne ko grand bi dama bëggoon nga ñëw bi mais la raison moom mooy mag mooy jiite wax na wax lu mooy dëgg suñu papa Eumeu Sène lu mu wax loolu mooy dëgg parce que tey tey ñëpp moo ñu bokk uuf bokk ñu njaboote mooy suñu papa mooy suñu mag mooy suñu lépp waaw di ko ñaanal dimanche yàlla guy daraja nabil Mustafa ndam bu seddu guy ci kaw Tapha Tine incha allah papa la ñun waaw man man ma sama papa la ma <laughs> man sama papa la di ko ñaanal yàlla père yàlla na guy incha allah dimanche mhm. Pikine yëpp di woo Pikine yëpp génn di woo waa Casamance jàpp si ñëpp génn yàlla may ñu ndam incha allah ñu ne Modou Lo dana Pikine bu ñu booloo bokk a daan xaw leen a féewale jël ñaari avance coow am ma mun leen a daan. ah mais mais loolu balaa psychologie la rek waaw ah mais loolu dara mais làmb la rek ñun moom fii xam loolu moo ne xamante jéem a def da nga koy nangu parce que sport la rek ku ne da mhm. dara moom mu loolu moom dara li mu wax moom man bu man tamit xool na laa mën a daanee mbër law noonu noonu laay def. mais loolu dara. loolu dara mais Pikine moom benn. na Pikine moog Boy Niang. ñaan Boy Niang gis daan mu bàyyi wala noonu incha allah bu <laughs> borom incha allah. Ah, waaw waaw. moo la a nangu mairie Pikine bi. waaw waaw la ñuy bañ. barke non billaay loolu mënul ne. toog ci bi. mu ne yàlla mun ah, ne. ne <laughs> mënut a ne de Babacar. Ah, mënut a ne. bañ ba tëri suuf. waaw ah, ñu ngi taal suñu loxo suñu borom eh, le premier janvier daan mën la jël bu rëy. Mhm. amul benn werante incha allah rabbi. sa wax ji dafa nekk wax joo xamante ne pour ñi nga xamante ne xamuñu pour ñu dalal seen xel ci Pikine ñu bari topp di Pikine dafa tas Pikine dafa tas tey boo xoolee ni nga waxee xam ne Pikine ñëpp a ngi ci jàmm ak salaam lamba ñëw defet a daan Ama Baldé mais du nit moo ko daan. aw nit moo daan Ama Baldé bu la ñëpp sotee yàlla suñu borom ànd ak yow mhm. yaay gagné suñu borom moo àndul bu ñu ñëpp sotee comme ay di gaa mais lépp am na parfois gars dañuy xër rek. mais suñu borom moo fi ne bu ñu ñëpp daan suñu borom ànd ak ñun ñëpp sot ñu daan. te Ama daa waroon daanu na. Mm-hmm. te lu mu daaw nii indiwaat na ko ay yenn kaa bëgg. Mhm. xool nañu Ama mi kilifa la. Mhm. Ama mi parce que ku fekk Baraak def ko étage. étage kooku dara ah. man la laa ma yaa suñu jamaa. yaa suñu idole. Mhm. Baraak Baraak nga fekk Baraak. def ko étage Ama moo tax ñu bëri léegi ñëpp dañu nawloo. ñun ñun ñii ci barke Ama ñu jox dépense barke Ama moo tax ñuy nekk ñun parce que suñu bamb bu njëkk bu njëkk bu njëkk bi daa ma gën a xam mm-hmm. mais léegi an ah, moo tax bu ñu moom waaw mais comme mën comme gars yi kenn sotuñu ah, billaay walaay kenn sotuñu am baat léegi di wax lu leen barke grâce Bamba am ñoo xam ne ni jamaa mm-hmm. parce que yaa barak daf ko étage mm-hmm. naan waa ñun ñu lay wax rek ñun du may wax rek ñun boo yëpp dañ ko a waaw yaa ma gën a xam daal moom su ma wax sama su ma wax sama mhm. sama xol lay tooy noonu la demee bilaay walaay. dëgg la man mhm. mhm. ak keroog dafa wax si moom parce que ak jooy ndeysaan. waaw noonu la demee barke Sëriñ Tuubaa parce que lu mu am ne mu ngi koy bokk ñun. bilaay coow li bëri na bëri na bëri na lu mu am mu ngi koy bokk ñun. xale bu ndaw bu teel a téye million. bàyyi bàyyi avenir am jël tabax kër. ñooñu ñëpp dugg leen di fay ndox di fay courant kon macha allah kon laf cat xam nga ni yow kon yow amul amul leen lay tës àdduna mm, leen amul leen lu muy tiit <laughs> di wax Pikine nag amul xaaj ak seen dañuy pare dimanche dem le premier janvier jàppale boo ñaa yàlla ma ko ndam amul xuloo amul xeex ñoo bokk barke Sëriñ Tuubaa bi la walaay jërëjëf Babacar kàddu yi neex na waaw noonu la demee parce que fii àdduna la rek amul leneen barke Sëriñ Tuubaa di di préparer le le le trois janvier le kii le le trois décembre di woo waa Pikine yëpp di woo waa Pikine yëpp waaw di woo waa Pikine yëpp di woo ASC yi fi ne yëpp di woo sama am di jàmm yëpp di woo waa Pikine ñëpp di leen woo di woo waa Casamance sama mbokk bay nu koy ñanaan ko ña ña nga xam tuuma xëy nantu bokk naan waaw Jumla le 3 décembre même nga CFA te nga fa diwaat ma ci xéem ña ndax ña ñàkk ña njaaxar yëpp ba xëy naant sama mbokk sama mbokk sama mbokk kii yi nag joolaa yeeg soose yeg balante yeg ñëpp woo naa leen di woo waa sama sama waa dëkk maam waa Golere waa Yoroba Kunda waa Sëñ Thiaw Ousmane waa Gaabu yow waa Guinée Bissau yëpp naan ñu ñëpp ngeen jàpp si incha allah bu neex yàlla yàlla may ñu dem incha allah di woo ne ASC nekk Pikine yëpp di woo waa Pikine yëpp mm-hmm. di woo waa ASC Jubóo Géejawaay di nga teg si ñoom loxo Rose ñoom Serif mm-hmm. di leen woo Jubóo Géejawaay sama ñi sama fi yàlla maa moom ah. di woo Bentali di woo ñam maam ñoom teg ko si loxo borom daaru naan la borom waaw yaa géré foofu incha allah di woo waa ASC nekk Pire yëpp surtout sama waa koñ nag waa cité police gis naa ñu may taxawoo sama mafia jour bi jour yi waaw <laughs> mafia saasumaan yi man ah. football lay dund waaw waa mafia jour yi saasu kii mafia saasumaan bi jour yi di la woo ñoom ñu ngi si taxaw ñoom yàgg nañu taxaw sax di leen dolli a taxaw rek di waa Cité Police yëpp di waa ASC nekk si Pikine yëpp gars yëpp dañ si jàpp si daraja Nabil Moustapha a jaar di woo yi nekk extérieur yëpp dinañ woo man yaa ma gën a xam sama gars yi may àndal ba ah, parce ba tey bàyyi ñu ngi jàpp lim kenn mm. du lim kenn moo tax ma du ma lim que daa am ñoo xam ne dañuy sonn si man te boo limee da ngay fàtte waaye maa ngi siyaar la waaj le 3 décembre yàlla may ndam incha allah neexee ndam Moustapha mm.